waaw waaw li fi xew daal kii bi nii jasit bi moom yàgg nañu ren di wax ne fii am na jasit waane man nag léegi mu am fi ñaar fukki at ndax suma borom kër sax fii la nelawee boo ma tëññee ba génn waane mosuma fu ji yeew nag moom daanañ ko doon gis fii am pagay ba nawet jotee ba ndox mi nag nii nii noor bi moo koy def waane ba nawet jotee ba noor bi jeexee ndox mi yëpp day dem fii lañ day fii jaabante waane ba nawet jotee gis nga ba fële ci immeuble bële day am ndox boo ci biir yëpp benn déeg bi la. dafa dafa nawet bi ñëwee daal lii lay def bu nawet bi ñëwee moom fii nii lay def bu ci biir waane ba noor jotee nag dañuy waaye wee ci diggante bi keroog nag ñu ne jasit bi nag moom ren yàgg nañ di ko wax waane xam nga comme que affaire kii nii tey ñi taxawoon yëpp ñu ne gis nañ ko tey koo ci wax nii day doo res dinaan déedéet mosuma koo wax ndax affaire yoon la yéeg ak wàcc ak nangam boo keroog man ma bi ma demee benn xew dégg ko fa ma ñibbisi na ma koy wax sama doom bi ma na ko man def fii ñemeetu ma mu ne ma lu tax ma ne ko nee nañ jasit defee am ren mu ne ma xii yaay ñii de ñu yóbbu sa fit bul topp remooro kii bi nii boo ci keroog mu am ñaari fan rek foog naa ñaari fan la fi rek suba tee rek mu ñëw mu ne ma yaay yow yaa nelaw waane man nelaw ba mu ne ma mu won ma vidéo bi mu ne ma lii dañu ko fanaana a awaay ci lañ xëy nag wax waa wal fajiri ñëw fi wal fajiri ñun ñoo ci doon wax bi ñu kiyee nii tamit waa Eaux yi ñëw na keroog tamit kii préfet ñëw na fi bi ñëwee daal ñu ne dañ nañ sàq pexe fii pour ñu seet nuñ ko kiyee ne ndaxte affaire bi nawet bi léegi duñ ko mën a gis ndax ñax mee tax ñu ne léegi nag danañ mën a am fuñ ko ak lamp yi ñu def ko lamp boo xam ne boo mu lumière bi boo mu ndox mi jeexee fu mu toll rek nit yi danañ ko mën a gis loolu daal lañ ci wax keroog. maanaam daal fii dañ ko bëgg a tëj. mu séparé wu ak euh, kër yi. ak nit yi ndaxte lii nii xam fi mu ne nii kenn du tedd nelaw. man mom bo guddee jotee ni lay fanana xolé bo ñu né allah akbar fajar man alhamdullilah ndax de di du ma ñeme nelaw de né la lu yëngu ci guddi sax ngay do ndax dangay ngay ne né ñëwna ah. fi xalé yi xalé yi du ñuy ñëw ba ko tay ah ñun ñëpp dañ fee yoro suñu jobbo yi xalé yi dañoo jang ñun ñëpp ñu ngi fekk suñu jobbo ku nekk ñu xalé yi dañoo jang bo ngeen ñëwoon heure fi ni xalé yi dañ fi feex del ndax ta yi ni bo ngeen sétane ki xalé yi da ngeen leen di gis fi fees ki mom mom kër gi momi tamit waa kii tamit moom moom kër gi xam nga ñun ñoo fi gën a jege ndox mi ñun ñoom ñoo gin a danseere ñëpp ah, maa lépp da nga koy teg ci loxo yàlla comme que jooytu nañ fi ñu war a jooytu ak yéen journaliste yi tamit ngeen jàpp ci rek ngeen ngeen ngeen jàpp ci rek pour yàlla dimbali ñu yàlla mun a fi mu ne daal moom luñ ko mun a gin a gaawe rek soxla nañ ko ndaxte tiit nañ tiit bañ a yeexal euh, affaire bi daal yeexal bi mooy problème bi yeexal bi daal mu la léegi kon fii dafay wa man de ma ngi dëkk ci kër gi da dëkk wa yéen yéen a gëna a sax dafa melni man nag moom la sama parentère yeen ndox may wa la na day dugg day genn ay bi day fekk xale yi fees fii ba xale yi wut ñom gis dañ koy gis bët bi di genn bët genné di tak bu ñu non la ba xale yu bëri rek mu xat ci biir mom ci biir mom ay ban heure lay di genn heure bi heure bi da koy genn ay boori 3 h guddigi guddigi da ngay dégg doole gi ñuy def moom man ci biir ndox bi sama côté bi nga taxawee ni ma jàkkaarloo nii net foofu lay nekk te sama doom ju góor ju coombaay bi ma ko dalay wax man na juróom-ñetti weer ne ma dina moytu fi am na ci saa kon bu mu génnee ba bëgg a lekk ginaar yi na man ci laa ko soog a gëm yi moom ko moom juróom-ñetti weer yi mën na mais defagul benn dégât ci koñ déet mu ko def ndax am ay doom sama man mi taxaloo moom net sama sët yi ñëw ba fii yàlla mu ko def ndax lii lay dégg di ñëw di génn te xoolal gestu palanteer yi boo paree nga jël palanteer yi ñu taxaloo ndox mi ak diggante bi maanaam ndox bi matuñu ñetti mètre ñaari mètre te amoo amaguma doole ma miiree ginnaaw nii bi fa ma miiree ko miiree bu mag loolu xaalis koy def kon lii man dama tëju dañuy tëj buntu bu mag bi tëj buntu bu ndaw bi ci biir la ñuy toggee ndax journaliste yi fare fe ñëw na fi ku ñëw ne ma tëjul ci biir bul génn foo xam ma fekkuma fi ci mbedd ma toog ci fii lañu daan tofis fi dell bu ñu yàlla dimbali toon dana fa def jéey waaye ñu teel a dimbale. préfet ak ñoom yi bi lu ñu wax. ñëw nañ dana def seen liggéey la ñu wax. ñu ngi dem ñu ngi di kenn toogul Kaolack ñëpp ngi ñëw ñëpp ngi ñëw ñëpp a ngi ñëw d'accord kan ma dem ñëpp a ngi ñëw ñëpp a ngi ñëw su fekkee ñëw na xam li muy mel ni saar yi ñooñu dégg naa awa forêt yi ñëw nañu dégg naa démb ñu ne gendarmerie yi ñëw moom daal nit ñaa ngi ñëw képp kuy lom du la waa dëkk Kaolack yaa ngi ñëw kenn ñu dëgg yàlla ñu ngi ñëw ni ñaa ngi ñëw nit ñaa ngi ñëw da léegi lan ngeen di ñaan maanaam ndox mi comme que mënuñ ko jëlee ni bu noor bi ñëwee ñu jéem ko def yoon sëriñ boobu muy mairie dëkk ba bu génnoon def ko kanaal ndox mu dem directement géej fii ñu def ko tali fii ay kër la boori déeg bii ma taxaw di wax si ay kër la boo ko defoon tali bu xonq bi sax bañ a am godorong sax fii kon ndox bi day daal di daw ndox bi daal di dem kon kon kon kon du fa amat da ndox mi fii lay jóge dem ba géej boo defoon ay canal yu mag rek canal yu mag bu ko ci defoon ra tali ko rax fu ndox amul ko dara du fi ñëw am na yi jasit yeew am na fi yeew am na fii dafi génn fi barke dama ko séeréer ñëpp gis ko am na ñu bëri ñu ko filmé xale yi waaw. gannaaw jafe yooyu lan moo fi amaat ci koñ xanaa su yoon fii ndox mi am nii suñu yoon bi fa la nekk palaay kër gi fa la nekk foog ñoom ñu defal ñu fi tali xool nga mbedd mee ngay seen foofu la tali bi commencé ñun fii mooy suñu yoon te buñ ko seen ñu bu defaloon tali taxi yu dugg si tata yu dugg si amuñ tata carte de garde ci quartier bi am na am nañu làmp yi doyut amuñu ay lamp lamp yi doyu amuñu ay lamp foofu ngi dimbalañ ci ay lamp sëriñ bu foofu ñu defal ñu ko yoon tali xool sama doom ji coombaay kaay kii bu ko dalee wax man na juróom-ñetti weer si weer mën ma ko wax su ma waayaan xew mën ma yaay moytu fi am na jasi dina la màtt waa góomu ma moo ko njëkk a wax waxaat tamit bu toogee woo ko ataayaloo mu génn di film fii dex gi maanaam gis na ba di da koy bàyyi xel lu bëri barke démb bu muy génnaa moom moo ko gis ma moom daal li mu ko gis bëri na moo moo ko njëkk bari na waa góomu ma xam nga xale doo góom te ma boobu sax waaw